word, word, word, word. billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim gannaaw ba ma sante yàlla julli si yonente di sant samay ñaari waajur di sant waa kër Serigne ma àndal te yéen teewaat fii si biir nga xam ne mooy di si marché bi di leen wan xeetu baax baax yi ngay am léegi dama bëgg ñu ànd ñu dugg si biir xool lan leen kapinte amal tey comme nu ma leen ko waxee woon rek tey nag maa ngi ànd ak yéen fii nga xam ne moo de si kapin tey maa ñëwaa yéen ànd ak fii tey pour wan leen xeetu baax baax yi gaay am kenn ki nag dama nduróo moom waaye du ma leen wax suma lan la ba programme bi pare ma wax leen suma lan la bàyyi ma jox ko mu nuyoo ma wax la moom la kan salaamaaleykum aleykum salaam man la Buhari waaw kapinta Banjul waaw Buhari est-ce que mun nañoo xam since kañ nga door di liggéey si kapinta bi waaw kapinta bi bi ma si dooree liggéeyal léegi laay am na thirty years now right now. si fii nga dooree liggéey wala am na beneen place boo njëkka a nekk balaa fii. waaw liggéey naa ñaari place balaa fii am na ñaari boos. ndax mën nga ñëw fan fan la. waaw almost yëpp si biir marché bi la because maa ngi woon si gannaaw nele place yi ma nekkoon yëpp si gannaaw la nekkoon waaye si ñaari nit laa nekkoon balaa fii. bi de ah alhamdulilah sant yàlla because liggéey bi moom ku si nekk rek ko mun a xam waaw façon problème bu nekk lañ dee am dañ dee jis façon yi bu nekk waaw léegi-léegi nag nga tasee see client yoo xam ne client yu baax la léegi-léegi nga tasee client yoo xam ne yu am problème lañ da ngaa liggéeyal nit sax ba pare sometime du la nangoo fay sa xaalis des fa nga am problème am nga understand am na ñoo xam ne nag da ngaa ñoom sax. ñu dem ba si biir si la problème bu du jeex doo doo understand daal waaw. gis ne ñun suñ liggéey duñ liggéey benn liggéey dañoo jël fii jël fii jël fii soo dafa dépend nag dafa am ñoo xam ne soo jëlee seen liggéey seen loxo dafa dëgër sometimes soo jëlee liggéey boobu da si dee am problème understand waaye am na ñoo xam ne nag soo amee seen liggéey daf dee gaaw. ifin bagage yi ngi a jëndal sax dafa nekka bagage yoo xam ne bagage yu correct la dee nekk astaan la waaye dafa am ñoo xam ne nag dañ bari affaire niti seytaane lañ xam nga lu ma miin dañ laa jox liggéey bi léegi léegi sax liggéey bi dafa métti mun ngaa jox nit ki two weeks si diggante bi nga am gàllankoor mun ngaa feebar mu sa loxo mun naa dog lu nekk mun na laa dal understand waaye am na ñoo xam ne am nañ PCN bi waaye am na ñoo xam ne amuñ PCN boobu noonu soo lii mooy problème mi liggéey bi understand yow bi nga doon dem school nga doore def kapinta wala bi nga demee ba jànga ba jeexal yow si nga doore def kapinta waaw non bi ma dem school defuma kapinta time boobu nag maa ngi woon si raba raba yi léegi-léegi bari na daal lu ma def liggéey naa fridge waaye bi ma bàyyee school dama njëkkaa liggéey fita understand nga ma liggéey ko one year ma bàyyi ma ne xaaral ma ñëw def kapinta Wah, bu Buhari ma mun nga ñoo wax bagage nga yow yi nga dé défar fi yeen façon nga dé défal mun nga ñu ko. waaw dañ dé défar lal dañoo défar tuugu dañoo défar dressing table everything dañ ko défar lo xamné ci mbiri kapinta la. ma almoire rek. ah seerut mom seerut mom xana waxtaan be dégo rek. waaw am nañ fi apprenté waye da ngaji gis ne apprenti yi sérieux suñu waaw right now ni sa so baye hel ben apprenté bi rek lañ fi am. waaye ñi fi nekkoon yëpp kenn nekkaatu fi. dafa des si nit ki rek xam nga métier dafa dafa des si yow nga pare pour baax ëllëg nga xam li la isi si métier bi understand nga soo xamee sa pour sa future ëllëg ak lu métti métti di nga ko try because ñun time bi ñoo jàng métier si la gënoon a métti yaa ngi gis da ngaa gis ne suñ tubéy dafa xooteeku sax dañ koo paaj noonu ñëw liggéey duñ am añ duñ am ndéewoo te dañoo liggéey because of lan dañ bugg a ëllëg ah suñ future baax understand nga so loolu mooy problème ko mu ne am na si kapinta bi taati yees mu ne nekkul kapinta rek la njëkk a def njëkk naa def fii ta liggéey na firij ak yu demee noonu kapinta nag neexul because da ngaa gis ne sooy sampee pa sa dos bi dafa dugg sa biir man li ma advice xale yi mooy nañ gëm seen bopp xam seen bopp xam ëllëg li leen war tey xaleel nga waaye ëllëg da nekk mag da ngaa am famille am njaboot understand nga so waruloo toog bay dem ba nekk mag di dem di camper wala di ñaanaatu may leen ma lii may leen ma lii te ku nekk war naa dem ba xam ne danga war a am jabar am ay doom understand so it's better nga start si bi ngay ndaw waaw man loolu laay waxale yi nañ ñëw jànga métier bi bàyyi mbeeda bi because mbeeda bi amul benn njëriñ it's better nga ñëw jànga métier bi soo demee ba métier bi dugga sa boppa des na si yow lu la neex nga def comme nu mu leen ko waxee rek yéen a ngi koo dégg tey su waree toog ba mun a defar almoor ak lal toogul rek mun ko dafa dem jàngi ji ko mu ne almasi kapinta bi taati yees la ko def ba tey lu mun a def tey mu ngi koo def tuma beneen beneen daanaa ni kapinta bi ma fi am rek jox ko moom mu nuyoo wax ñu moom mooy kan. asalaamaaleykum maa ngi nuyoo waaw maa ngi nuyoo maa ngi tudd Ansumana waaw dëkk Banjul fii marché fii lay liggéey kapinta la. waaw yéen a ko dégg mu ne mu ngi fii si marché Banjul bi kapinta la an su ndax mun nañoo xam depuis kañ nga door kapinta bi moom soo si nekkee tamit soo amee ñoo xamante ne ñoo bëgg a xam si yow si si looy yëngu soo man loolu dama see kontaan pour moo wax la ko waaw kapinta bi maa ngi ko start since tout sa naka tout sa nan tout start waaw ba léegi daal alhamdulilah waaw maa ngi si kawam nag ba léegi nag waaw. ñoo mag ji ko waxee rek waaw man moom daanaka man. nekka naa si loo xam daal te am na yu bëri yoo xamante ne daal moom su ko waxee rek man jarul ma si jaaraat daal waaye nag xam naa ni moom du dee easy ak client yi comme moom nu mu ko waxee because léegoo nga am client yoo xamante ne ni moom da ngay da ngay ba tas waaw léegoo nga am client yoo xamante ne dañuy am understanding waaye nag waaw ñu ngi koo manage daal ñu ngi koo manage ak nu mu munti mel daal ñu ngi koo manage ak client yi because easy wut interview nag am na feneen fu ma jaar nag waaye nag fii laa fii laa fii laa ko jekkale daal fii laa ko defee yëpp daal waaw fii laa ko jekkalee fii laa defee yëpp daal ba fu mu nekk ne alhamdulilah daal. waaw comme dafa mel ni yow da nga ne da nga roy si sa mag bii di Buhari toog soo ndax mun nga ñëwal lan lan nga roy si moom. waaw jikko jikko bu baax rek dëgg dëgg waaw mun na liggéey liggéeyam bi set na ba pare amul problème du tooñ waaw du tooñ du tooñ doomi aadama daal waaw moom foo ko gis rek mu ngi liggéey pour njabootam yi daal man daal gis naa loolu si loo xamante ne daal. bëgg naa ko si roy si moom te bépp jikko boo xamante ne tamit am na ko tamit bëgg naa ko roy bi ko sof ni ku baax la waaw soo ko seetloo ngeen ne comme si moom nga jaar xam nga soo gisee apparenté yi bari ñoo fi toog tey tey ma ñoo gis la ngeen ne depuis 2002 yaa ngi fi ak moom loolu dina ma jaaxal lool because man eh, gisuloo bii nag xale laa fi fekk ñu ne moom rek a fi nekk mu ne ñeneen ne sérieux waaye kon yow dina ñu ngi laa jaajëfal bi nga xam ne yow mi nga xam nga toog nga muñ kon lan nga xam ne comme nan façon liggéey nga mun fii ak yan yan nga dee defar waaw man moom lu suma mag ji liggéey rek man dama dee liggéey lal dama dee liggéey armoire dressing table waaw bépp liggéey boo xamante ne wàllum kapinta la daal dama koy liggéey waaw te man si loxoom laa jaar daanaka nekk naa si loxom daal fu mu nekk nii alhamdulilah daal. maa yow doo dee caaj rek ba raw ko rek. non non non déedéet du ma caaj mooy suma boss waaw moom lu mu caaj rek waaw man man tamit lu mel noonu laa dee caaj. léegi man bu may ñibbi xam nga lu ma bëgg. Ah. moom ma ma toogu almoor ko anti umi laa xoobee léegi yow soo ma joxee toog yi ma may ko Chili. <laughs> waaw affaire yi moom because ni ku tamit da ngay xalaat sa ëllëg daal man su man su ma gis-gis because te nit moom daa ngi war a yaa ngi war a am sa famille ëllëg understand nga yaa ngi war a bil xam nga yaa ngi war a am loolu loolu ëllëg ëllëg soo da gis ne soo si soo soo soo nekkee di toog si mbedd yi nii xam nga du toppa yuut si xam nga di naan ataaya di tux xam nga yooyu noonu amul njëriñ understand nga te métier bi dafa am njëriñ boo xamante ne tey doo xam soo génnee si nga xam ne métier dafa am njëriñ soo man dama leen a advice suñ ñu jóg xam nga daan seen doole understand nga ñu jàng métier because aduna bi moom fu mu nekka nii lu nekka léegi xaalis la soo liggéeyu da ngay sàcca te boo sàccee moom boo beneen affaire la soo man dama leen a advice ñu jóg dem jàng métier waaw pour mu njëriñ leen ëllëg man loolu laa leen advice you know waaw yéen a dégg comme ni ko gars yi waxee rek olof Njaay defa ne suñu ak sama fon naa sama ko daaxu parce que nga làmb daj sa poos dara daaxu ko kon xale yi nag yéen a dégg comme ni ñu ko waxee Buhari ñu bàyyi la nga tàggatoo ak askan yi nga xam ne ñoo la nekk di seetaan kontaan naa si torop kontaan naa definitely aw ma lu ma wax de xanaa kontaan gërëm naa leen sant naa leen li ngeen def nii baax na lii dafa baax ni ngeen a def nii di dugg si dëkk bi xam lan mooy problème yi nit ñi loolu dafa baax torop si askan bi understand nga su ko defee nit ñi mun a wax lan mooy seen problème su ko defee ñë ñu ñi nekk si wàlli government bi xam lan mooy problème yi nit ñi suñ ko munee saafara ñu saafara ko kontaan nañ si torop defe naa do dégg loolu ma jox an su tam mu tàggatoo ak ñi nga xam ne ñoo nekk di ko seetaan lay ñaanal rek yàlla defal la jaama ju bëree bëree bëree musal la daxal la seetaane musal la cat ak lamiñ yooyu noonu waaye kontaan nañ trop nag comme ni nga bëggee nii ñëw laajte ñu comme na ko su ma mag ji waxee rek waaw kontaan nañ si trop trop trop trop trop soo léegi man dama damaa ñaan rek daal yàlla defal leen jàmm yooyu ñëpp yéen ñëpp ñuy liggéey si rajo bi yooyu noonu xam nga kontaan naa trop. jërëjëf Anso ak Buhari mi toog. malen waxon nak amna kuma fi ndurur suma ma dina dinaa ko wax fi ma toog nii nag man suma papa yefi tok ki tok ni mom moy suma papa mom moma jur muy Buhari job ki nak suma papa bu ndaw la mom tamit suma rakki papa la comme nu len ko waxe rek di leen jaajëfal mi nga xamne yena tok setan Sahel Entertainment di nuyu suma cameraman suma xarit bi ma di aissa dom yaay di wax ne leen malen dox dig dajja ba benen yoon inshallah work, work, work.